donc si euh, daje bi tay li waral moy suñu rak bi suñu ancien élève donc di docteur Falla Mané dafa ñeu poser ben action bu fort boo xamné union des jeunes pharmaciens du Sénégal ñoko poser un acte mooy dafa ñeu indi ay gel une solution hydroalcoolique nga mom ne mom lañu jëfëndiko actuellement pour aseptiser manam pour

cette situation situation Covid bi dina tax après ñu xalaataat nak naka la ñuy góorgóorloo ba li utiliser Sénégal ñu koy Sénégal. parce qu'on a une faculté de médecine et de pharmacie qui a plus de 50 ans formé ay cadres yu bari ay borom xam-xam yu bari donc war nañu mëna changer le cours des choses té lu tax koy wax tamit parce que actuellement kenn ku ne dafay tëj ci bopam heureusement si vous avez des doomu sénégalais yoo xam des xel màcc na pour indi contribution notamment avons ñu de ko de sant di gërëm parce que nous avons nañ def ay action yu a fait, c'est une tamit action la quoi sensibilisation la population pour nous naka la naka lañu wara comporté comporter donc ça vraiment mang de remercier diko ko diko tamit parce que dañuy jokkoo tout le temps Sinon, ak moom si tamit lay ak euh, directeur général des quatre grossistes privés moy Laborex UbiFarm, Sodifarm et Duofarm. ak euh, Dio ak pharmacie nationale d'approvisionnement nga xamné ñom ñoy centraliser garab pour la prise en charge ak industrie pharmaceutique moy Val d'Afrique ak euh, West Africa Pharma ak Medis Pharma ak euh, Parenterus depuis ñetti semaine wala weer nous ngi chaque semaine pour xool naka lañ saytoo stock maanaam li li am ci garab ci dëkk bi pour dire en charge car ñi feebar ci Covid bi mais également pour dire en charge tamit yeneen feebar yi parce que yeneen feebar yi taxaw ñu di xaar Covid bi yëpp ànd. Mhm. te Covid bi dafa ñëw ci moment boo xam ne dafa ñëw perturber lu ñu ooyee chaîne d'approvisionnement manam dam beeg dikk bi ci garab yi. yëpp dañ koy jéggaane dafa dafa jaxasoo trop. avion yi moom ñëwatuñu. bateau yi ñooy ñëw te dañuy yéex ensuite yeneen dëkk yi yu mel ni ay Inde ak yooyu jël ne seen produit ñoom yu ñuy defar. pour ñoom la d'abord. donc il fallait que ñu teel a pour xool stock yi jéem yok yokk de stock yi et alhamdulilah am nañ série de stock yoo xam ne de 3 mois à 6 mois de stock pour les pour tout type de produits. ensuite waxtaan nañ ci gel bi ñu ngi defee fexe ba nga xam ne ñëpp nañ ci jot te duñu fay lu parce que pharmaciens yi dam koy waxaat tamit ils ont consenti dañoo nangu wàcce une marge ci ci produit bi ñu ngi jaay ci officine moins cher bu 500000 litres bi 1600 litres jar bu bu ndaw bi

donc secteur public bi moom am ko hôpitaux yi am ko. si privé bi ñoo amul mais on pense que semaine prochaine privé bi dina am yooyu yëpp quoi. donc yii yëpp nag day day day day secteur pharmaceutique bi derrière le commandant en chef de la riposte le ministre Abdoulaye Diouf quand même parce que euh, gis nañ boobu ba léegi nelawul taxawul donc euh, vraiment nous avons koy jaajëfal si action nous yëpp te pharmaciens ñu ngi ci ginaawam té duñ ko seetaan suñu position nak dafa stratégique parce que pour nga dem guerre fa nga way jumtuwaay jumtuwaay nak ñoo koy gérer ah <laughs> léegi nag logistique bobu lañ ne mo taxone mo tax euh, chaque semaine dañuy rencontrer def le point donc euh, xol nu séto stock yi ba du am manqué manqué et c'est une commande c'est une directive du président au niveau et ñu ngi ci xar suñu tànk tubéy té di ñaan yàlla tamit dañuy dem si ay prévisions négatives manam pessimiste mais ñu ngi ñaan yalla quand même bala bobu affaire bi jeex dem dem dem yoonam.